رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى الحمد لله رب العالمين Euh, li ma mun a wax ci moom moo di ñun fekkee nañ jamonoy baay liñ gis ci moom mooy mooy moom moo ñuy fàtt moo ñu doon fàttali baay ndax lépp lu baay tëraloon mu ngi ci woon ci loolu la tàggat ci loolu la ñu yare ci loolu lañ àndoo ba nim xëyee ni wuy ji boroomam moo tax ñu ngi sent yàlla bu baax a baax a baax a baax yàlla mi ñu boole ak moom waaw daal loolu lañ am lu ñuy wax mënut a gudd nag loolu rek lañ mën a am ci loolu seede bi daal mooy ku baax la julit la akan ku baax la te royteef la waaw royteef bu mag a mag a mag mëri na jafe na nit maanaam ñu nangul nit mm-hmm. waaye moom ñëpp nangul nañ ñëpp ko nangu loon ñëpp ko nangu loon la lu ko waral ay jikkoom ay jëfam ay ni mu doon taxawe ni mu doon léppam daal ndax moom lépp moom booy wax sax boo waxee ne waxal bàyyi waxal bàyyi waaw moom bàyyi rek moom bàyyi rek bàyyi rek bàyyi rek mm-hmm. waaw ñun daal ba tax ñàkkuñu mm-hmm. ndax xam nañ ne eh, lim fi suuxat mm-hmm. mu ngi fi mu ngi fi moo tax ñàkkuñu dañuy wax alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah. sànq dama laaj maam alaaji ma ne ko lu tax sëñ bi ndaw ñi ñeme woon ko lu tax. lewetam lewetam ak it moom bañ nañ ko ba papa lañ koy wooyee ñëpp papa ñëpp papa lañ koy wooyee ndax ku ñëw rek moom daanaka yow ci njabootam nga mm-hmm. képp ku ñëw rek yow ci njabootam nga bokk. xam nga kooku mhm. ah macha allah looloo tax njaw yi ndaw yi ah moom bind ñuy def ko coo mag ñi dafa bàyyi foofu mag ñi moom dafa toog rek jamono ñëw ndaw yëpp yàlla ndaw si ñëw wut si ko mhm. ah, loolu nag mbiru yàlla la waaw ah, loolu moom mbiru yàlla la mhm. waaw moo taxit tey mu macha allah alhamdulilah képp kuy ñëw ci ziaram yi ah xam nga ne am na lu ko yàlla defal waaw ba ci bu ci mujj mooy آه، آه، آه، مسيرة وديني بني ينوغيري جماعي ما شاء الله الحمد لله سنتي الله ببا يرجف عبد الله ربا رسول إله العالمين تعالى خديمك نادى يا رسول تعالى خديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير الإله تعالى